asalaamaaleykum mbokk yi teel altine ñaar fukki fan juróom-ñett ci dul xijja muy weeru tabaski di fukkeelu weer ak ñaar ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci gàddaay yonente bi salallahu alayhi wa sallam dëppoo fukki fan juróom-ñaar ci weeru juillet ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ñett ñaar fukki fan ak juróom bokkul ci lim yu fàtti lim bu rafet la kon tey ci altine ji rafet na li ci gën a taamu mooy ku ca watu wala ko ca daloo altine ju nekk sunna la ci ko ko man mu war ko ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weer wu nekk dees ca yeggale ab sëy dees ca tukki ñaanuk bis bi maa ngi sàkku njéggalul yàlla mi aji màgg ji yàlla mi nga xam ne amul benn buur bu du moom te mooy aji dund ji tey aji des ji tey tuub dellu ci moom astaghfirullah an azim alladi laa ilaha illa huwa alxayul qayum wa atubu ilayhi astaghfirullah an azim alladi laa ilaha illa huwa alxayul qayum wa atubu ilayhi xadisu bis bi jëleef na ci abi dar mu jële ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam ci li mu daan nettali jële ko ci sunu boroom tabaraka wa taala mu ne yéen nit ñi dangeen ngeen di bàkkaaru guddeeg bëccëg man may jéggale mbooleem bàkkaar yi sàkku leen sama njéggal ma jéggal leen xaddis bi muslim nettali na ko an abi dar an nabi sallallahu alayhi wa sallam fi ma rawa an illahi tabaraka wa taala annahu qaal innakum tuxti'uuna billayli wannahaar wa ana axfiru dunuba jamia fastaxfiruni axfiru lakum rawahu muslim waxtu julli yi suba waxtu dana tàbbi 5 heures 34 juróomi waxtu yu tegal fanweeri simili ak ñeent tisbaar 13 heures 40 benn waxtu wu tegal ñeent fukki simili takusaan 6 heures 40 ñeenti waxtu yu tegal ñeent fukki simili timis 19 heures 40 juróom-ñaari waxtu yu tegal ñeent fukki simili gee 20 heures 51 juróom-ñetti waxtu yu tegal juróom fukki simili ak benn loolu mooy waxtu julli yi si Touba ak li ko wër bu fekkee nekkoo Touba soo ko féetee penku ñaar fukk ak soo ko féetee gànnaar wala Saloum téeméeri kilomètre dina yokkal benn simili jant bi dana fenk 6 heures 48 juróom-benn waxtu yu tegal ñeent fukki simili ak juróom-ñett di so 19 heures 36 juróom-ñaari waxtu yu tegal fanweeri simili ak juróom-benn yàlla nanu yàlla nangul te nangul leen amin